ñenteelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi tooma kenn ci fukki ndaw yi ak ñaar nekku fa woon tooma ne leen bu ci tegul bëtam du ko gëm ñu teg ci ayubës bés yeesu waat taalibe ya bii yoon tooma mu nga fa woon yeesu ne na jàmm wàcc ci noonu mu ne Toma mu teg baaramam ci loxoom ak ci wetam yeesu ne ko mu bàyyi weddi te gëm Toma ne yaay sama boroom yaay sama yàlla beneen yoon yeesu feeñu na juróomi téeméeri ci ab bërëb bu ñu daje woon léegi ma leen juróom lu tax Thomas amoon xel ñaar ci ndekkiteel Yeesu. ndaxte moom ci boppam gisul woon Yeesu.